yéen ñëpp xam ngeen ni càcc gi bëri na ci réew mi randal bi bëri na jël nañu réew mi jaay ko tubaab yi jël nañu suñuy pétrole suñuy gaz ak lépp joxe ko suuf si ñu ngi koy dagg di ko jox étranger est-ce que bëgg ngeen loolu lépp dakk fi ma ngay jaar ci Macky Sall ñu mu leer ko ni mandaam jeex na senegal te pour loolu am ñu ngi wax ak askan wi gis nga 31 jui bu ñu génne list liste yëpp sax benn politicien amu fi ñu jël ay nit yu ngeen xamul yewi Askan présenté massivement pour yewi Askan kon waxu troisième mandat dootu ci am te bal du tak manifestation du am gañu gañu du am du ci rot kon ku am kudd waro lak sénégalais am ngeen kudd way way am ngeen kudd bu len kenn nax ci lenen ak élection jot ñu sacc di ko jox le 31 juillet la bu ngeen defee li ngeen war def vous naa 2024 février 2024 à 20h Macky Sall takk nay pare ñu abal ñu ak soxoram ak mëna fayom ak mëna a ak jaay est-ce que lolu bëgg ngeen ko ma ngay commencer le 31 juillet ci lolu lañu wo sénégalais motax moo tax ñu ne dinañu am lu koy natt. lii natt loolu dañoo bëgg lii ñu wax ak sénégalais sénégalais tontuñu est-ce que pare nañ pour loolu keroog Aïda Mbodj dafa wax fii ne li xewoon keroog ci concert bi concert euh, casserole bi mu ne référendum la gis ngeen ni concert u yi am na préfecture yëpp dañoo dajaloo def benn concert te benn préfecture rek la interdiction am jaadu mom mo wax li ñu lu yoon wax muy bu Fatick préfet Dakar néna na déglu leen bu wax li mu wax dafa am solo néna risque réel de de trouble à l'ordre public ak des mal intentionnés dañuy joggé ci biti ñëw infiltrer kon mom nangu na ni ñun du ñun ñoy les mal intentionnés du ñun ñoy malfaiteurs yi ay nit yu joggé feulé ñoy ñëw infiltrer ñu. waye neena dafa am ñu préparé won pour sacc xaru tabaski jaay katu xari loolu la préfet wax nee gaay dañu bëggoon profité ci manifestation bi ñom xam nga loolu Macky Sall xelam warna tay nit ñi amuñu njëgu xar liggéeyul jàppalewul Sénégal ba nit ñi amuñu xar mu ne légui suñu manifesté won gaay dañuy profito sacc xar bu ñu tabaski jé xam nga ko sacc xar sax amo tabaski am nga yap nak kon ñom def nañu sen concert d'interdiction ñu wax leen ñun lan motax du sen interdiction motax tax ñu de ñu wax leen askan bi luñu ñu ak ñom lañ ko bëgg a remplacer nak andak mu doon ben référendum ci ñaari question yi ñu wax askan wi ben ñaari question yi ñu wax askan wi ben il faut que massivement askan wi wax ni le 31 juillet Macky Sall dina ñak assemblée nationale ci lo xamné du am lam lamé du am contestation de dafa am solo ñaarel bi moy ñu won Macky ni momo mi yaay kula neex yaay tej kula neex yaay dakh kula neex yaay jaay suñu alalu ñaari question le référendum bëgg concert de casserole a jeudi jeudi xam nañ ni pare ngeen bu yàgg ñii sax dañ ñëwoon nañ ko def tey waaye dañ ko def ëllëg moo gën lañ ci bëgg nag mooy li ñu amoon keroog dañu bëgg lu ko mat ñett parce que dañu bëgg mu doon message bu gën a forati ci Macky Sall te muy mujjanteelu concert casserole bu ñuy def suñu weesoo loolu nañu yeewi nit ñi ñu préparé ji seen tabaski te ñu jóge foofu dëgmal nak élection locale ndax xam ngeen ni fi ñu toll nii tey fukki fan ak ñaar mo dess ci début campagne bi 12 jours dafa jot normalement bés bu ñuy tabaski bés bobu la campagne bi war commencer xawma sax loolu nuñ ko organiser kon suñu paré loolu na ñëpp dem préparer sen tabaski te yalla may leen xar ak luñu xotté ak yeneen ak yeneen wayé nañu préparer campagne bi kon gën ëlëk 20 jeudi 30 juin à 20 h dañu bëgg ku ku nekk sax casserole cornet parce que loolu ëpp sax solo li liñ doon bëgg def manifestation yooyu waaye ma daanele nag Macky Sall léegi li bëgg mbëbëtam ñëpp xam troisième mandat

parce que nous sommes 2024 nous mi bon ci muy def provocation déclencher préparer parce que nous avons mooy nu muy def leader yi nu def loxo fexé ba loxo ci leader pour préparer inéligibilité pour 2024 il rek a des dossiers dossier rébellion des dossiers dossier appel à insurrection commando spécial minute ñu a cocktail molotov lañ doon def ñu a taal réew mi ont été mu def ko procureur safadi safadi xam man bi ma tribunal de rus quoi di interroger eh, eh, yow sax li nga trait ah, ah safadi benn peeru safadi boo xam ne kenn mos koo gis ñu ne kooku mooy procureur Sénégal waaye ñu ngi leen xaar fii kon c'est pas parce que ñu ngi naan concert casserole que bàyyi nañu leen méthode de lutte bu nekk ak fi ñu koy utiliser waaye nañu dank fanaanal rek parce que natt nañ ko xam nañ fu mu toll. yëral yëral waay yëral yëral xam nañu jotali yëral yëral.